Sénégal TV Moko internet yi ñu ngi ci Cap sur Tabaski ba léegi waaye tey maa ngi fii ci bergerie Al Khoureychi

wa di sant yalla mi nga xamne may nañu fekke ak tal daw ñewon nga ci ñun ren nga ñewat ci ñun euh, sant nañ ci yalla bu baax parce que fekk nañu ñu and wër and ak wër te tal ko donc ñu ci sant yalla bu baax ñi lay dalal bu baax sha allah. Euh, al defe defana daw ngeen nek a ci mbéd bi def euh, opération. waaw opération Alxuraysi waaw moy mooy ben mais c'est vrai que ñun yag nañu def lolu je me souviens euh, keroog maa ngi fàttali benn euh, opération tabaski bu ma defoon en 2007 doon ci fàttaliku benn mal, bu fa nekkoon boo xam ne ci man la juddu woon et cetera et cetera parce que man avant may nekk yarkatu laadum mën naa ne yafalkat laa woon yafalkatu xaru tabaski laa woon kon euh, bii mooy effectivement deuxième édition wu foire Al Khoureychi waaw. daaw ak ren man étude nga def man xam nga lo loo def daaw daf ko rek am benn setlu boo ci def ak ben remarque ak lo bëgg bo bo boo ci li dem ci li lan nga gis. déjà sur le plan individuel euh, j'ai toujours dit je l'ai répété que damay jàng mbirum tabaski damay jàng même si defon naa ko yaa en 2007 tay dama jàpp ne damay jang te dama am ay mentor yo xam ci ñom lay jangé dama koy wax mu may sànni xeer. abu kan bërki dem bi ma nee ko man maa ngi jàng rek maa ngi lay xool di jàng rek mu ne ma non yow champion nga da nga may nax rek euh, naxuma ko je dis sérieusement je pense que damay jàng te euh, lu jëm ci wàllu tabaski euh, dafa am vraiment nu ñu nu ñu ko gisee dafa am nu ñu ko gisee mooy ay éleveur la ñuy woowee dafa jaadu bu tabaski jotee ñu xool ban njariñ la ñu mën a amal askan wi Euh, mënoon nañu ëkku nak tok suñu ruq rek des ci na nek mais dal bokkul ak suñu vision légui liñu remarquer nak ci lim évolué c'est que daw amna luñu lu ñu jang ci loola ren ñu xaw ko rectifier gën ci gis suñu bop entre mais ëpp ci maanaam expérience wu daaw bi dal servir nañu ren. merci loolu la bëggona xam. merci vous êtes là depuis combien de temps ñaata temps ngeen def ci site bi ça fait deux semaines qu'on est là def deux semaines qu'on est là euh, donc xar yi nañ ba légui sax amna yo, yo, xamné grosso modo euh, site bi peut-être gënaluñu won mais finalement nek na site qui xamné euh, vraiment amna visibilité ngeen Grand Dakar lan y daf deux raisons la première c'est que Grand Dakar c'est totalement impraticable à cause de la construction du BRT donc faut vieux chantier donc l'ol c'est la première raison et puis la seconde euh, c'est qu'effectivement fi moy fi adéquat par rapport à Grand Dakar manam ne Grand Dakar daal fi gën fi ne tax pas fi d'après man sama remarque personnellement je suis naa ne de fu parce que fii a am aller retour te deux voies liberté six dafa nekk ñoo est-ce que tu nga ça? Oui, c'est hyper fréquenté c'est hyper fréquenté même si quelque part il y a un problème de stationnement les gens ne savent pas où se stationner euh, Benen bi ci les gens sont un petit peu frileux aussi Ils disent bâche bi xaw lan la dafa mel ni dafa am lu bloqué et barrière, on est obligé de le faire. Je pense que les gens se sentent un peu... Bon, se demandent, non, Madougou, Mabanyadougou, Madougou, Mabanyadougou. Euh, bon, ça, c'est peut-être pas une bonne chose, mais, mais c'est vrai que c'est un bel endroit. Et l'accessibilité, amna solo. Nit kune muna muna fi enfin, je veux dire, ni gene fi, ni diare ni, bon, il y a, y a quand même du monde, quoi. Il y a du passage, il y a du passage. Si vous avez deux semaines, ci ñë nombre de moutons avez-vous commencé tourner C'est ça en réalité on avait une cinquantaine après on a eu des si yu bon aujourd'hui c'est vrai que je pense qu'il en reste une trentaine pas encore vendue euh, mais je pense que déjà fait trop pour nous. C'est la ci ci diggante dugub bu génn bi cinquante yi am na yeneen yu si yokkaat ba ngeen dépassé. am yu génnaat waaw ci biir cinquante yi am na yu yokku am na yu génn grosso modo bon il encore une trentaine à vendre. mais euh, alxure ci ren euh, dama gis tey da ngeen am ay maal yu am doole yu fi nekk bëri na fi quoi ay maal yu mag nana ngeen def ba euh, am boobu boobu sélection. waaw en réalité euh, comme ñun dañuy bâche. et que amna suñu ay natango suñu ay xarit éleveur yo xamné xeyna lañu yoré ci nombre xar duñ ci mëna a bâche ku yoré deux xar trois xar du bâche euh, ci ñoñu lañu jëlé xari ah ci ñoñu lañu ñu xari amna xari am na xar yu jóge Tëngéej y a un sacré lot qui vient de de Mbour aussi euh, je fais un clin d'œil au passage à mon ami Latir parce qu'effectivement effectivement euh, moom moo walu Mbour

Wow, euh, on va dire que de 300 dalles le bon amna ci yenn xar yo xamné xeyna mom sax euh, fi copains ay euh, amis d'enfance yo xamné indi nañ sen xar fi Euh ñu librement ñu def ko xar yi on va dire que ça va de 200 à 2 millions ok ok c'est variable bon le site le logistique bi est-ce que opération tabaski mën na mën mën na fay site logistique bi temps bi ak li def ci da honnêtement da euh, on l'a dit l'année dernière on va le redire on cherche pas forcément à faire de l'argent avec ça vraiment le but n'est pas économique à la base le but c'est

je disais que ne euh, on demande à personne de faire exactement ce que nous faisons. Ce serait prétentieux de notre part. Mais là, nous, une philosophie, avec ce nous avons, bu tabaski Nous ñun philosophie globale c'est clair nous sommes en tant que éleveur su tabaski jotee dafa am lu ce war suñu diggante ak ñi ñuy woowee éleveur sénégalais nous sommes des éleveurs éleveur kon ñom dañu am ay soxla euh, lu jëm euh, tabaski ak lu jëm consommation de viande de façon régulière quotidienne et régulière kon ñom li xaar ci ñun bu tabaski particulièrement bu tabaski joté éleveur bi am rôle bu jouer pour ñom ñu mëna am xaru tabaski légui nak ñun man dama philosophiquement en tant que éleveur bu tabaski joté war nañu génne quelques sujets jox ko askan mu tabaské ko léegi nak je dis que c'est obligatoire pour personne de le faire yenen éleveur yi mën nañu fonctionner ni mu ni ko xalaatee imposer wuñ suñu philosophie à personne mais ñun lool moy suñu vision té loolu ci la dox donc for fondamentalement du du am ci xaalis moy suñu base moy moy suñu objectif premier.

Ben, tarfatal ay ni xaw nañ ko ñàkk wolu ci mu doon géniteur xaw nañ ko ñàkk wolu pour mu doon sujet bo xamné dina améliorer liggéeyu benen éleveur on préfère le mettre dans la zone tabaski mu jëriñ tabaski plutôt que ñukoy dégg ci benn bergerie té duñ ci am satisfaction loolu loolu moy mbir mi en fait donc euh, on a toujours dit que deux xétu élevage mom duñ ko mës a bu ñëk bi mooy mouton laadum yi nga xamné chaque jour dañuy fexé nu ñu leen améliorer benen bi moy croisement yi nga xamné ne ñu koy def avec les dorpeurs les îles de France ak ñom sen pour faire de la production de viande benen benen compartiment bi moy mbirum xarub tabaski ki sama kër la juddoo xar bi sama kër la juddoo noir et blanc bi sama kër la juddoo ñett ñele yépp sama kër lañ juddoo loo la ngay gis ne ñett ñële yépp sama kër lañ juddoo waaw. te da nga leen di jox ah. tey da nga leen di jigéen waaw. en tout cas loolu moom dama bëgg mu mu nit ñi gis ko quoi parce que waru ñu jàpp ni laadum tamit xam nga te xam nga laadum bu demee feneen tam fu dul tabaski rek yàq na ko nañu wax ne dëgg parce que suñu borom moo ni xaru tabaski bu xar bu dee tabaski rek àjjana la jëm kon ñun bu ñu amee laadum mu nuy jëriñ war nañu leen permettre ñoom ñu dem ci tabaski. absolument c'est-à-dire mais xaru euh, champion yi ci Sénégal yëpp. c'est-à-dire que les gens ils ont tendance à dire que yenn champion yi c'est euh, doom warul nekk ci bâche tabaski je suis pas d'accord je suis pas d'accord. tabaski muy xaaral xar mënul dem fenen fu ëpp ëpp doole dara. amul fu ko maxaama ak maxaama bu gën a tabaski amul existé wul donc il faut qu'on arrête de penser que suñu laadu mi rien nañ pour tabaski. ma dem xam nga ça veut dire que dañu dafa mel ni.

waaw am aussi ay femelles yo xamné elles ont été saillies wàcceeguñu guñu xawa sori moo tax wuñ len et puis il faut quand même reconnaître une chose c'est que ici euh, baganté bi xawa am fi au départ on n'est pas très rassuré sur l'aspect sécurité moo tax effectivement box yee nga xamné andi indi nañ ko pour dougal len ci on les a pas amenés finalement parce que voilà c'est dafa jege talibi dafa jege talibi dal Why not? mën nañ mën nañ bàyyi ba après tabaski ñu not fa wane liggéey boobu waay na waaw dañ ciy kontaan sax dañ ciy kontaan sax loolu moom ñu wane message bi ak euh, le dernier mot euh, yaakaar nga ni tu vas écouler tout tes moutons wala bu dee 30 yi nga doon wax non jeex na da ngay wat yeneen est ce que yow tamit parfois di nga dem ci àll bi ut xar wala yow da ngay tok def sélection ci biir Dakar. wa en réalité dem ci àll bi jënd xar pour ñeu jaayat mom je suis pas dans cette euh, dynamique là euh, dynamique bi ma nekk mooy effectivement am ay ay éleveur ni man yoré ay xar yu ñu mëna jaay ma dem récupérer ko ci ñom amna na benn buy joggé Mbour léegi mu ngi ci yoon bi di euh quand tu as

mooy xam nañ le marché du laadum pour les moutons tabaski c' est quelque chose qui existe am aussi ay métis yoo xam ne dañu laal ci tulabeer yenn suñu yenn anciens éleveurs yi ñoo ko doon ñoo continuer di ko yar di ko yafal am ci jël ah euh, am na ñu ci jël donc daal suñu objectif c'est prendre ces moutons là yooyu nga xam ne jóge nañ ci suñu mbokku éleveurs yooyu valoriser ko indi ko ci bâche bi jaay ko ñi ko soxla

77 732 69 deux fois 732 69 deux fois mon numéro mobile bi bu alxureeshi donc euh ñu ngi contane lol ci sa ñëw fii waaw saa suñu la gisee suñu xol day sedd parce que gis nañ ne dal ni ngay def tek nga ci pas-pas macha allah yal na yàlla sàmm. yow toog naa yow dafay neex quoi ndax chaque jour damay gis ni yaa am am na jëm quoi. dëgg la deug la yalla na doli jamm yow ko pas-pas bi té samal ñu boppam. barkat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ni Mirum xal yi teel alliance pour le développement et l'amélioration des races adam ginnaaw foire sectorielle ak départemental yamuy faral di organiser le grand saladam di rendez-vous international ñëwaat ak qui ci le grand daral de la tabaski ci esplanade bu stade Léopold Sédar Senghor dinañ fa nag aménager lu toll ci 1800 mètres carrés pour ay xar li ci gën a neex nag indi daa mën a am xar dinañu fa exposé ay laadum yoo xamante ni daanaka njëg li boo ko déggee rek di nga xamante ni fii ci réew Sénégal ñoo ngi bay seen waar bu baax a baax li jëm ci wàllu élevage xew-xew bi ni mel nag. liñ ci bëgg lenn dong la mooy askan bi ñoom ñëpp daal di am xar waaye it tamit jàppale gouvernement bu Sénégal ci jéego yi nga xamante ni mu ngi koy def ngir xar du manqué fii ci réew Sénégal ñu ngi ciy woo nag bépp partenaire képp ku ci bëgg ay information supplémentaire dañuy daal di woo ci 76 634 20 20 wala ci 77 526 36 04 mbokk yi ñëw leen wuy si gaaw